laa ilaha illallah cëy lii lu doy waar sénégal bi ci kaw ak bi ci suuf ku ko doon weddi gis nga ko tey kawteef ak mbégteel la ñu dund ci sénégal bu tey li koy jëmmal ji ab ndaw soo xamante ne nii ba mu tollee ca matu dafa dem ca hôpital Maguilène Senghor ngir mën a wasin wasin bu jaar yoon ñu dàq ko ca xaj ne ko mënuñu laa faj te duñ la toppatoo ndaxte yoroo wéroo te say nelaw doyul lii ku ñu ko nettali loon te fekkewuloo ko tekki sa bët di nga ko weddi mbaa nga ne ki ko fësal ci ay firnde yu leer di daam jeen ab waajoo jël téléphone am filmer lépp la ca gën a doy waar mooy mbir ma guddi la xew démb ci ay deux heures du matin ay médecin wu hôpital Majilène Senghor ba ca Yoff ñoo génnee ab ndaw soo xamante ma nga tolloon ca matu te la ko waral mooy ndaw sa yorul woon na xaalis bu doy ngir mën a assurer mbaa fay paj ma nga xamante ne moo ca waroon waa ñun dañuy bëgg a jommi wala lan jigéen ju taxaw tol ci matu sonn di bëgg a dee nga ne ko doo fi wasinee ndax yoruloo xanaa sax boogi jàppale ko ba mu ba noppi loo koy laaj nga laaj ko ko moom moo fekkee ma di dam jeen moo firme mbir mu doy waar fësale ci xëtam tey ci talaata ji daf caa toftal yëg-yëgu directeur bu leeral tv moom mi nga xamante ne daf ko méttitlu ba pare boole ko ko ay joy yu métti yi rongo njay tuuru baat bay lox ndax méttit ak naqar gu mu am ci mbir mi bu ñu sukkandikoo ci ñeneen ñi nga xamante ne nii nee ñu fekkee nañ ko wax nañ sax ni nees tuut mu daal di jotee ak ña nga xamante ne nii ñoom ñooy gardien ca waxtu woo xamante ne ma nga doon wax ca kaw la nga xamante ne métti na ko lool jëm wàllu ndaw si bëggoon na matu ñu ne ko doo ko fi ay kàddu métier ma wax naan jëlul carte d'identité am waaye jëf ju ñaaw ji ñu jëf dafay firndeel rek ni ci réew mi ku fi yorul alal bokkoo te da ngay dee deegu yomb lii waxuma la ñaaw gi mu ñaaw waaye dafay toroxal doomu aadama lii la monsieur Dieng yëkkati ci ay kàddu waaye ndem guddi la woon ndax ñu ngi woon ci lu jëm ci wàllu deux heures ba trois heures du matin waxtu woon na métti woon na lool te mënuñu woon a gis kilifa ya nga xamante ne ñoo ngi ca l'hôpital Philippe Maguilène Senghor mii ngi ne xamante ne moom moo nekk ca Yoff kawteef waa lii fan lay mujj ndax dañ indi leen ci ay xibaar yu leer jërë ngeen jëf